fekkee ne téye nañu liste candidature yi en en en en l'état euh, quel sera l'avenir euh, du Parti démocratique sénégalais avec Karim Wade nan la ñu mën a def ba revenir euh, dans le jeu politique non PDS euh, moom c'est l'unique parti politique en Afrique bu perdre le pouvoir garder benn clientèle électorale boo xam ne nii depuis douze ans bougé wul PDS muy taw muy ngelaw am na cinq cent mille électeurs PDS c'est une politique incontournable au Sénégal loolu kenn mënu ci dara yàlla moo dogal loolu da wax bi loolu moo tax nag élection présidentielle bu mel nii war a am Sénégal ñu war a ay famille politique PDS amul candidat loolu rek déjà c'est un problème pour la démocratie. amuñu woon candidat en 2019. parce que parce que xam nga àdduna defal naa defal naa defal naa defal naa gis nga gis nga élection euh, liñ ci natt mooy jox possibilité peuple Sénégal ku nekk en fonction ci sa sensibilité. am na benn waaye bu ma woo bi ma bi ma defee fii benn interview ci benn journalu français di wax ne élection dafa waroon am mu woo ma ne ma mais Yérim ma ne ko ah, ma léegi bu ñu defoon waa élection yi Pastef gañe nag xam la laa ko tontu golo sax golo golo bu fekkee ni moom la Sénégalais yi tànn pour teg ko ci réew bi non il faut nit ñi comprendre loolu. <laughs> mu jiite réew bi. man c'est pas mon problème aw ci problème na gaa yi jël dàngin gi gën a rëy ci Sénégal ko fal ko. na jiite parce que moom la sénégalais yi bëgg nit ñi nag loolu mooy affaire bi moo tax ñu war a jox possibilité nit ñi ñu compétir dafa yomb torop jaar ci ay arguties juridiques éliminer ay adversaires tere nit ñi ñu bokk nañu bàyyi nit ñi bokk sénégalais yi bu fekkee ni dàngin moo leen gënal pour jiite réew mi na dàngin googu jiite réew mi <laughs> seen seen responsabilité la est-ce que tu comprends de toute ñiy voté ñu ci ëpp ñoom ñoo gën a soxla nguur réew moo gis dafa am ñu soxla nguur ak ñu soxlawul nguur ñi soxlawul nguur moom quel que soit nguur gi fi mën a nekk dañ ciy génn am na ñoo xam ne nag nguur rek moo leen ci mën a génne dañoo ñoo ëpp ci ñu ñuy voté ñooñu buñ jëlee dàngin teg ko ci kaw réew mi loolu seen problème nañ ko gérer donc nañu bàyyi calculer nañu bàyyi xolal nañu bàyyi nit ñi bokk sénégalais yi voté. mu jeex terminé